lu mu bugg a def dafa dem ba jeex waaye yow lay toon di seet ni saa waa ji balaa ñëw yegg yii kanaa danga ko ko wax xanaa déglu sa mbaam bi nu mu nu mu xandooree yow yow rek moo mun a def loolu yi su ko yégee loo def fii ba tey faa sa biir bagaas si biti danga foog ne suma yenn saa yoo jaxee na yónnee si facebook bi maa ko séef suma laptop bi dama ko yónnee sa waajur yi yow man si biti laa la war right now naka la fii Sénégal nit bu la ko waxee mi ngi bëgg xam ndax yenn nga ci jàmm fanaan nga ci jàmm est-ce que sa yaram mi ngi ci jàmm ba xam yaa ngi féex mais ak TFM fii quelque temps di ngeen gis beneen façon wu muy benn série boo xamante ne dañ lay expliquer le vie wu africain yi à l'étranger plus précisément en Angleterre ñi ko joué nag nekk ay Gambien ak tamit ay acteurs sénégalais mais lii bees ci série boobu mooy que comédie musicale lay doon parce que acteurs yi dinañu wax ba ci kanam nga gis leen ñu commencé di woy série boobu nag bu amee benn nit moo tax muy Mamadou Lamine Touré ñu gën ko xam ci Cisco parce que moom moo bind série bi moom moo koy réalisé moom moo koy monté moo def casting bi bi sax ko. Bijou ça va. kontaan ci recevoir plateau bi. thank you very much for having me here. Mm-hmm. di leen gërëm di leen sant di nuyu waa senegal di nuyu waa Afrique ak di nuyu waa Gambia seen doom seen xarit seen am di jàmm xale bu ndaw taalibe ku xamul dara suufeel boppam moo leen di nuyu di leen sant di ñaan gen ko yokk ñaan wax ne nice to be in Sénégal. Cisco waa Sénégal ak Gambie yëpp fay nañ la tey moom xam naa ne waxtaan bi dina xumb trop parce que man français ak ak euh, wolof lay jaxase Cisco anglais ak wolof lay jaxase mais grawul ah, on va ñambaas tuuti sénégalais ñambaas tuuti pour xool nu muy demee non grawul dinañu dew réew de toute façon ñu wax ci naka la di série bi nga xamante ne moom ngay produire di ci jouer mm-hmm. ak euh, bind scénario beeg yëpp nga def ko mais avant loolu dama bëggoon ñi seetaan xam sisko kan la enfance am maanaam bi mu nekkee xale fan la juddoo fan la màggee ak euh, naka la def ba dem tukki. waaw Mamadou Lamine Touré benn xale bu ndaw la bu amoon passion and love for entertainment. Mhm. Euh, maa ngi dooree di euh, play comme primary school dañ lay def Commonwealth Day ñuy euh, act maa ngi musoon a act president of Nigeria. ma amoon benn scénario bu ma doon act. from there ñu dool di am passion pour entertainment. Mhm. ma def Gambia Red amoon drama group. buñ euh, buñ buñ bokkoon ñuy def ay mini théâtre di tourner di sensitise nit ñi about HIV mhm. AIDS malaria yeneen affaire mooy comme yi ñuy joué fii di lutter contre euh, paludisme contre sida ak yu mel noonu Gambie même chose la def so from mhm. ma ma ma ma def ma dooroon di perform benn way euh, waykat bu ñuy ooyee Mark Andrews bu nekk Amérique ñu xamee ko ci Cisco. Mhm. may def performance am ton song Unleash the Dragon so benn temps ñu dem euh, Lend Hand Society dañ am benn euh, événement bu ñuy def chaque année mooy fashion show maay perform loolu. managing director of Radio FM ñu xamee ko ci Momadou Thomas mu gis ma. mu like suma talent. Mm-hmm. mu invite ma seen office ma dem foofu laa dooree entertainment. d'accord so def naa Radio 1 FM Gambia six years. maa nekkoon di youngest DJ in the Gambia. six ans nga nekk DJ ci benn rajo Gambie. d'accord maa nekkoon euh, présent présentateur bu gënoon ndaw ci dëkk bi. ñu ooyee ma youngest DJ. boobu ñaata at nga amoon. 17 xale bu ndaw di mm-hmm. door and then uh, ma dem ba def benn blueprint in the Gambia mm-hmm. ñëpp xam suma e-, émission yi time boobu sénégalais artiste bu ñëw foog nga jaar si émission bi pour ñu xam ne ñëw nga ci dëkk bi boo bëggee siiw daal foofu ngay jaar exactly international artiste ma responsible woon pour interview pour star si ñëw Gambie yooyu noonu mm-hmm. après loolu ñu am benn uh, théâtre academy bu ñuy ooyee kañaleen théâtre workshop foofu laa dooree uh, ñu def benn one year ande ñu def benn production ñu ngi ko ooyee Tom and Sally American Way ma actoon uh, uh, James T. Callender mooy journaliste boo xam ne mooy génne secret président Thomas Jefferson d'accord après loolu ma tukki Norvège euh, dem dem si suma papa foofu la dëkkoon ma door jàng làkk gi and then uh, ñu am benn uh, projet boo xam ne état bi moo ko sponsor mhm. uh, mu tudda Nordic Black Theatre mooy pour minority yi ñoo xam ne nii minorité waaw minorité yi maanaam étranger yi nit ñi nekkee ci dëkk bi gën fa tuuti exactly waaw so ñu sponsor loolu ma bokk ci def ay production Lysistrata foofu noonu from there ma ñëw Gambie am fi ay yenn projet yu may def mhm. bu ma delloo nag ñu am benn casting Yuli Toyingata Yula Kalenda. Mhm. boobu mooy suma start of my production film uh, uh, international career in acting in Norway. nga ko defee mooy premier film bi nga defee Norvège. loolu dinañ ci wax tout à l'heure mais li ma bëggoon xam mooy est-ce que bi ngay nekk di nekk DJ di mhm. jouer mhm. di def lépp loo xamante ne mi ngi ci domaine art est-ce que da nga doon jàng en high school uh, bu maa dem school su ma wàccee léegi-léegi ma dem ci radio bi mhm. léegi-léegi ñu fanaan guddi ba parce que ñun suñ boss euh, George Christensen bu laa jox micro am foog nga xam li nga def que léegi comme lu ma ko ma ko doon wax te tey dafa yomb ñu mhm. foog nga xam li nga def foog sa voix mhm. foog nga xam sa tone foog nga xam cadence naka ngay waxee wàccee kàddu yi égal foog nga xam job bi balañ laa jox micro. ñoom dañ leen doon jàngal lool wala dañ leen dañ lay defar ak casting dañ laa defar ba pare jox la nga doxal. Mhm. so foofu laa doore and then 2004 uh, si laa launch suma company in the Gambia Valentine's Day 14 February ma ooye ko Touré syndicate. Mhm. maa doon def all white party bi in the Gambia. d'accord uh, the biggest party nine years ñu ko def. and then uh, every year ma indi production bu es because Gambians yi dama leen gëmloo woon ne celebrity lifestyle Hollywood in the Gambia ñuy maa laaj ñan ñooy celebrity yi. ñun amuñ fii salubrité ma ne salubrité nekkul ne nga am compte bancaire. bu mag duuf. Mhm. wala kër yu bëri wala oto yu bëri. ah waaye mais baax na ci de xam nga tamit nekk célébrité. waaw boo génnee ñëpp xàmmee la. ba pare boo boo génnee ci mbedd bi doo mun sax jël taxi. waaw taxi loolu tam célébrité la xam nga daf plus la soo amee xaalis. Mhm. ak euh, yooyu noonu waaye. comme yow li ngaa liggéey li ñëpp xam la ñëpp ràññee la mm. célébrité nga mm. doonul ne da war a am ay oto yu bëri kër yu bëri nit xam nañ la ci li ngaa def te mun nga ko mm-hmm. célébrité nga ma ñëw with red carpet treatment paparazzi photo session VIP treatment ne ma ñii lan la ma ne leen war a gëm suñ bopp bala ñuy dem di emulate outsiders ñun xam nañ ne dañ am ay stars. su ma gëm loo leen loolu ba gars gëm ko ma gis nit ñi di ko doo di copy. Mhm. ma bàyyi leen loolu benn année ma indi fas yu weex tal teg leen ci diggi club bi. kon yow daal rénovation ngay demee. all nga jël Hollywood daal indi ko biir Gambie indi ay kan biir Gambie nga xamante ne euh, fi ñuy wax Payette Strass nga xam ne star yëpp mun nañ fa wane seen bopp loolu nga andi Gambie. exactement mais mais bi ngay def loolu xale bu tuuti nga. sa parents yi nan lañ doon réagir bi ngay génn pour di def loolu. sama papa euh, dafa yàgg Norvège and euh, suma bàjjen moo ma yàgg Aminata Touré maa ngi ko gërëm di ko sant. Mhm. daf ma yàgg a góom ma yàgg a góom ba pare daf ma daan euh, parce que man dañ ma teel a bàyyi because xam ne man dañ ma teel a bàyyi dañ gisoon that leadership quality in me. d'accord so comme ñu naan la demal jàngi demal study non ñun su exam jotee dañuy pass. ba pare xam nañ ne liggéey gi tam dañ ko lor so dañu si jàppale dañu si dañu si jàppale pousse bi. telewuñ la daal comme fii souvent parents yi ni ñuy def bu ñu gisee seen doom nekk ci benn activité. exactly mhm. yeah so loolu laa ñu indi ay fas yu weex teg leen ci club bi digg guddi ñu bàyyi fi tax yi naaw xam nga. big screen bi celebrity yi dugal red carpet photo photo session Gambien bi doo di gom ma ne lii la we have to innovate. Mhm. production soo ko def. du présentation ñëw rek taxaw waaw euh, soirée baa ngi nii DJ bi ñëw animé dem non dangaa indi nañu lu bees loo xam ne buñ ko gisee nañ xam ne lii is production. ba pare dinañ ko fàttaliku sax ne soirée bi Cisco defoon kat. ay fas amoon na ci ay picc naa woon na donc day des ci bopp nit ñi ba léegi. mais ñu wax ci bi nga demee Norvège. waaw bu ma demee Norvège dama dem njëkk a jàng làkk bi pour mun a communiquer ak nit ñi après euh, ma dem école. waaye ma gis suma bopp ci entertainment trop laa dem ci euh, Nori Black Theatre boo xam ne ni état baa ko sponsor mhm. then euh, ma door di act ak ñoom ñu def production li si stratégie then ñu uh, invité ma ci benn casting bi ñuy ooyee Yuli Toyingata mooy Christmas calendar. Mm-hmm. and then uh, si laa am suma professional career into cinema and film industry in Norway. donc ci Yuli Toyingata mooy Christmas calendar. calendar plutôt mooy calendrier de de Noël. ci nga commencé am sa carrière internationale à Norvège. am nañu euh, tuuti ci euh, ci série boobu ñu xool ko ñëwaat. Vad är det du håller på med? Mm. Mm. Mm. Är det något voodoo? Voodoo? Nej, nej, nej, Bongo. Bongo? Ja, Nga ye solo moy tuut. Nga ye solo ni moy tuut ah. Mais ku kala la jam. Mbe ñoo faale. Ma ma faale ga. donc loolu moo nekkoon extrait bi ñu jëloon ci Yuli Toyen Ngate ni ma koy prononcé noonu la ah. euh, di calendrier bu nowel ci euh, ci norvégien ah. Norvège nga ko joué woon ah. benn série la woon norvégienne ñaata épisode nga ci joué ak ban rôle nga doon joué ci biir série boobu maa ngi fa play woon euh, colorful africain comme dafa dafa doy waar parce que dañ doon jéem a caricature africain yi yooyu noonu so man ma ñëw joué fa benn rôle koo xam ne comme gis nga couleur yu ma sol sax dafa mhm. fees because ñu ngi bëgg a euh, caricature africain yi mhm. man nag ma ama chemistry ak euh, euh, réalisateur bi nako ko mun naa cee boole ay yéen a moo mu ne ma waaw ci laa ci boole wolof. boole waaw c'est ngi lay dégg ngay wax olof ak soose ci biir ak soose mu laaj ko xamul lu ma wax waaye xam na ni daal am na ci xorom. Mhm. so from there ci la suma agence bi xam ne kii am na am na avenir ci affaire bi. après loolu ba léegi ñoom laay liggéeyal six series yu ma in Norway ñoom ñoo ma jox rôle si. ak série boobu sa carrière internationale nga lancé mais est-ce que da jàng euh, acting bi nga demaatee foofu parce que euh, c'est vrai que en Afrique mun nga nekk di jouer alors que mosoo ko jàng. Mm-hmm. mais souvent Europe boo demee wala aux États-Unis mm-hmm. école bi nga génne daf leen di intéressé trop. correct euh, Gambie def nañ fa Kañalañ Theatre Academy dañu jàngaloon basic techniques of theatre acting. Mm-hmm. te bu ma demee fële ñoom dañuy yóbbu ci beneen niveau. mooy Nollywood Black Theatre. théâtre la ñu doon jàngal. loo xam ne chaque jour la so foofu laa jàngee tamit yàlla dimbali ma ci ñu am ci more in uh, international experience when it comes to acting mm-hmm. and then uh, suma affaire yi bopp di make research di jël ay uh, role model di leen seetaan di bàyyi xel mm-hmm. ak read si laa gën a am suma standard. expérience bu gën a baax donc euh, après loolu joué waat nga fa yeneen rôle. Hmm. comme par exemple ci Special and Hating. mooy Miami CSI un peu bu Norvège. casting yi naka ngay def pour pour pour am rôle yooyu est-ce que yomb na ci yow en tant que euh, africain nga dem def benn casting pour benn rôle ñu jox la ko. waaw du dee yomb parce que euh, comme. CSI Miami Norwegian version la. comme hmm. ay fi criminal gangster ak yooyu. comme hmm. xëy na su ma lug la gars yi njëkkoon a gis. Mhm. waaye bu ma fa ñëwee comme man su may dem casting damaa bàyyi xel lan la script bi wax. d' accord ma try pour solo noonu personnalité bi. Mhm. cadence voice matching. body language ak humour loolu laay a jàng. booy dem casting bi daal da ngay dugg ci biir personnage bi bu baax personnalité. personnalité mooy ni ngay wàccee égal wood d' accord euh, body language langage corporel waaw mhm. waaw yooyu laay jàng five yooyu su ma ko jàngee xam script bi. bu ma demee xam naa ne daal dina métti waaye. di nga am rôle bi euh, façon de jouer bi ñuy def Norvège ak bi nga xam ne moom la ñuy jouer Gambie est-ce que amoon na différence ci yow. big time big time. mooy différence bu mag. big time benn seen bi nga gis soo ñëwee comme su ñuy jouer fii tey benn scène bi di nga gis 50 moto 50 auto. d'accord ñëpp ci production bi di nga gis xëj na ay personnalité yoo xam ne. su doon man dam su doon Afrique da nga ne kii amu fi njëriñ. defu fi dara waaye kuy ekkati benn toogu teg sax. am na mhm. njëriñ. Mhm. ba pare cinéma. dafa utee home video. d'accord ba pare qualité image bi ak caméra fan la muy taxaw loolu yëpp kaay dañ koo bàyyi xel ni ngay solo ki ñi dafay sax kawar bi kuy bàyyi xel duñ doon wax ndax kawar bi dafa dellu woon gannaaw dafa ñëw. mooy script continuity ak script yëpp dafa. Mhm. so daf la day yóbbu ci benn niveau ba pare dafa tax nga gën a. góorgóorlu because nga xam ne fii du du affaire yi. Euh, faw ñu daal waaw te te dina la gën a tax sax yow booy def benn production. Mhm. nga jéem ci euh, xëcc yooyu yëpp même bu fekkente ne moyens yi du benn. of course of ah. course because budget bi is high is big and then everything is there so. daf dee tax nga gën a góorgóorlu parce mais ñu wax tuuti ci cinéma africain ak moyen yi nga xamante ne moom moo ciy am souvent. Mm. Afrique déjà dëkk yu bëri amatul cinéma. non hmm? ba pare amul industrie cinématographique boo xamante ne boo dee produire dara ñoom ñoo lay ñëw euh, supporter. loolu pour yow en tant que producteur scénariste réalisateur tout ce qui va avec lan moo war a nekk solution bi. wan wax naa ko Gambie ñun euh, lu ñu lu ñu manqué mooy comme suñu dëkk yi dañu desee góom. te tamit ah, boo nekkee ci carrière xam nga lu ma dee wax ñun ba tey amul industrie ci cinéma. Mhm. mouvement lañ am. Mhm. mooy ay nit ñu booloo am love ak passion pour affaire bi di ko def. Mhm. loolu lañ am waaye bu ñu amee industrie dañ nit ah, producteur dañ nit réalisateur ah, casting agents dañ nit continuity production managers production assistants locations lawyers we need promoters we need everything. to have a fully yaa ngi dem ci anglais bi. waaw yaa ngi so mooy mooy groupe bi war a nekk ci film bi yëpp mu nekk production yi scénariste yi euh, avocat sax dañ ko soxla bu fekkente ne da ngay def. Euh, film waaw mm. ak. Euh, ñuy def casting. casting droit d'auteur. Mm-hmm. yëpp dafa war a tegu. Mm-hmm. ba pare ñu am ak bi. marché marché. Mm-hmm. ba pare government am benn fond bu ñuy teg. boo xam ne ni producteur bu ñëwee war a def benn film euh, ñu dugal ci seen euh, seen seen proposal government bi jox leen tuuti pour ñu bo bo boole ko ci production bi. Mhm. parce que film ak cinéma day jaay dëkk. c'est vrai mooy jaay publicité dëkk lay def. dëkk Amérique tey ku a dem Universal Studios. Mhm. Hollywood because mu ngee jaay mooy mooy marketing mooy tourisme. Mhm. te foog naa ministre of bu nekk ci Afrique war na moo bokk. ci luy tax euh, cinéma Afrique jëm kanam. parce que ñun ñooy jaay dëkk bi. comme boo toogee tey benn bi euh, bijou na ci deux deux vies la. double vie double nga gis euh, tali yi ni ñu mel Sénégal nga gis car rapide ci Ndiaga Ndiaye et eh, man suma waa ji avancé ci kanam paas <laughs> yéen a bokk yoon bi bul bàyyi dara xam nga sareet yi de mais sama gars yaa ngi décollé de. Hmm. xam nga yaa ngi gis nature bi. yaa ngi gis Sénégal ni mu mel sax yaa ngi ne hmm. waaw fii dëkk bi rafet naa dëkk bi nice la bëgg naa faa dem. so da ngaa gis ne loolu yow jaay nga dëkk boobu te mhm. government sax yëgul so foog naa ne government bi war nañoo boole bokk ci loo xam ne mooy tax cinéma africain en tout cas cinéma africain tout le temps ñi ngi kaas problème yi mu am tout le temps nit ñi ngi koy kaas acteurs yi ci mhm. demee passion comme yow ak ñeneen mhm. euh, espérer que kaas bi dina egg ci nopp ñi mu war a ba ñu mun indi solution mais ñu continue toujours ci sa carrière Norvège après euh, bi nga defee euh, CSI Miami version norvégienne da nga def benn beneen série bu tudd Lillehammer Lillehammer mais yaa ngi ci wax italien di ci woy italien te yaa ngi ci tudd Lil Balotelli. El Balotelli El Balotelli. waaw exactement film boobu naka la ko norvégien yi defee ba pare nga joué ci rôle italien. boobu mooy foog naa suma carrière la lu gën a rëy ci li ma def si suma carrière. international parce que mm. Lil la is a série boo xam ne la mooy première norvégienne série boo xam ne. Euh, américain ak Norvège ñoo boole def ko. Mm-hmm. Netflix comme télévision boo xam ne da nga fay mën a seetaan ay série ay euh, ay film ñoom bii mooy seen première. Mhm. production boo xam ne génne nañ ko bugaay début. bi ñu njëkk a def waaw te jaay nañ ko ci 178 countries around the world. ci world bi and then maa ngi fa play a big role bu ñuy ooyee Balotelli te uh, Steven Van Zandt uh, moom big Hollywood superstar la Sopranos mu ngi play ak uh, Bruce Springsteen mooy leading mhm. guitarist bi. and dañ ma oo casting ne ma ndax ñeme nga pour jouer rôle parce que dañ jël yenn star from Amérique from Angleterre indi leen. so rôle bu ma doon joué Amérique lañ doon xalaat wala Angleterre. pour jël fa nit. pour jël fa nit. pour mhm. mu play El Balotelli suma casting agent bi ñu woo ma ne ma ñeme nga ma ne naa ko dóor ñu seet. ma mhm. ñëw dóor ñu dóor fa dóor euh, ay two hours. Mhm. Euh, affaire bi xaw a. ñu joué pendant deux heures waaw man a euh, koo xam ne mooy moo topp ci lead acteur bi. d' mooy kii doon def second rôle bi. waaw second rôle te moom moo win the best actor in Norway 2013 ma joué moom ñaari waxtu ñu ngi teg caméra suñu kanam gars yi ne léegi dañuy dem yóbbu ko ci producer bi. pour xool waaw. Mhm. ñu xool gars yi ne waaw ah, foog ñu wooyaat la nga ñëwaat parce que more than people ñoo ñëwoon pour casting rôle boobu. waaw so ma ñëwaat benn ma ne bii moom foog ma dóor personnes. ñoo ñëwoon pour def. Euh, casting pour El Balotelli bi. nga joué ci ki nekk meilleur acteur. Euh, Norvège ci bi nest pas. d'accord léegi nga joué pendant deux heures ñu ne la joué waat ça veut dire que marqué nga leen. waaw affaire a doyoon na so parce que dama gis ne after am na affaire yoo xam ne yenn manière yenn caractère yu doon bàyyi xel ma dem ma redaat script ma ne ma ñëwee dama mhm. ma ñëw maa waaj jeex ma dara du des yëpp laay joxe ma ko defee lii moom maa international. Mhm. est-ce que xam am nañ film bi tuuti. Ah? am nañ film bi. nañ ci xool tuuti li nga joué ñëwaat ñu soog a eggali commande. est-ce que yow da nga mën a woy wala dañ doublé sa voix. <laughs> waaw léegi euh, affaire boobu ñëpp ma ko laaj am naa yenn fans yu nekk Amérique. Mhm. Euh, comme euh, suma benn mu koo koo xam ne mën naa wax ne. papa la ba pare premier fans la. Mhm. doomam bi moo win Oscar Awards best documentary 2011. ah c'est bien moom daf ma gis Facebook la ma contacté ne ma daf ma like moom sound production ak yëfi stage paf uh, music la dee def. tech mhm. engineering. Mhm. loolu la ma njëkk a laaj ndax da nga dee woy. parce que nu ma ko nu ma ko woyee dafa marqué ñu bëri waaye. c'est vrai dama ko woy waaye dañ génne voix bi dafa beneen voix. du waaye léegi defal ci vol benn sa voix tey. <laughs> yaa ma bëgg a dugal. dugal tuuti rek. ok <laughs> waaw. bool ya benn saay matanto matanto benn saay e una cartel on mine e soglie il sangue binte bi soy. <laughs> je pense que mënoon nañ garder sa voix. non dama doon dangale xam nga. non non mënoon nañ ko garder quand même. ba mu dem mais yaa ngi woy en italien joué rôle El Balotelli bi nga xamante ne c'est un footballeur italien. africain bi ñu gën a xam actuellement ci monde bi. Mm. da nga laax italien. non xam nga loolu laay wax comme production international dafa am ay affaire mhm. parce que dañ jël benn italien koo xam ne euh, yàgg na Italie jàng na xam na musical mhm. moom dañ ma booleen jox ma leçon ma dem jàngaat moom mooy ak euh, wéy bi ak euh, different manière sooy woy woy italien. parce que italien dañ bëri gestuel bu ñuy wax ba pare tam am na benn scène bu may def ski mooy ci glace gi ngay skate. Mhm. boobu tam dañ ma yóbbu école li nga xamal pour ma jàng ko pour mun a ski dañ dañ euh, moo tax ma ne bii bu ma cee dem dama cee dem ba jeex. Mhm. parce que bu ma defee affaire bi dama ñëw Gambie gars yi dañ doon seet jël yeneen casting ma ne maa ngi dem Gambie waaye lu ci nekk ñu wax ma ma toog Gambie ñu woo ma ne ma ah foo ne yaa ngi ci affaire yi ma leen waaw ñu ne ma. affaire bi casting bi def nañ ko ba pare ma ne nu mu demee ñu ne ma jël nañ la yaay président. bi ñu la waxee loolu noo def. waaw yow dama toog de ci kaw dal célébrer nag ne leen fi mu nekk nii moom waaw yàlla ñëw na. xam nga. non mais xam naa yow célébrate bi sax ak euh, le fait que ngay célèbre par rapport ak film boobu ak le fait que mu lay ubbil benn carrière internationale neexoon na mais est-ce que du koppar yi taxoon nga tëb. lan am ah, na ko koppar moo tax nekk ci la foog mu bokk ci. c'est vrai non because uh, I mean like film boobu noonu moo ma ubbil buntu yu ma def yëpp. Mhm. parce que uh, dafa tax noo jéem gomma comme dafa am benn benn histoire bu ma la uh, nettali dafa mhm. amoon benn magazine bu Mm-hmm. dama daan def ay événement di indi ay artistes. d' accord indi naa fa Morgan Heritage indi naa fa Brick and Lace. ak mm-hmm. different artistes in Norway. so ma am benn événement ma ne leen pour ñu defal ma publicité ak yooyu noonu bina ay affaire yi ne ma noonu célébrité yi rek la ñuy la ñuy bina. jërëjëf xeeb noonu daal waaw waaye xeeb dañ ma teg ci xeer yi ne ma non mais ñun amuñ temps célébrité yi rek la ñuy bina. Mm-hmm. mais bu ñu def première euh, deuxième saison bi ma ñëw ci red carpet bi gars yi dañ doon daw di ma ñaan. kan ñoom ndax ñoom ndax ma jël la nataal ak. première euh, caractère bi ñu jël la nataal ñu bind sa ay affaire d'accord ma ne ma ree suma xol ne dëgg dëgg yàlla mooy buur dëgg la boo góorgóorloo jéngu gëm sa bopp boo demee rek yàlla incha allah dina fa nekk non gëm sa bopp sax boo ko amul moom doo avancé doo dem fenn mais mais bi nga jógee foofu da nga def beneen film boo xam ne mi ngi tudd showbiz benn court métrage film bu mm-hmm. gàtt 13 euh, mm-hmm. minutes mm-hmm. mais film boobu euh, tamit yow yaa ko bind yaa ko réalisé yow yaa ngi joué sax ci biir waaw est-ce que fële nga jëlee xaalis bi nga produire non boobu boobu. wala beneen beneen beneen fond nga defee <laughs> production xaalis boobu ci naka la la dugg. ci naka la la dugg <laughs> naka la dinañ ci wax ci kanam mais wax ma tuuti ci showbiz. showbiz moom comme like euh, dama def euh, film ak television production Norvège ba pare ma def suma masters in film making cinéma in euh, Angleterre. da def master. in filmmaking en réalisation. waaw ak production d'accord ak production en Angleterre. li tax nga dem jàngi ko. parce que dama gisoon ne acting bi maa ngi koo def entertainment bi DJ bi yeeg yooyu dem boîte play mu ngi saturé. Mhm. professionnalisme bi des na. après mhm. marché bi daal mu ngi changé. ma gis suma bopp ci film ak cinéma lu bëri ma ne pourquoi pas ma dem jàngi affaire bi. ma dem jàng ko def Norvège film ak télévision ma dem Angleterre def masters specialize into production ak uh, direct directing mhm. because dama xam ne am na histoire yu bëri dañ ko war a wax Afrique dafa bëri ay story yu ñu a wax te yooyu noonu comme at bu métti la woon ci man mhm. ma tuddee ko the year of reflection mooy at bu métti la woon ci man mhm. ma def le point un peu par rapport ak sa li nga jot a dund ne bàyyi bu ma fesal suma bopp ma làqu jàng ma dugg a xaluwa génn ci xaluwa bi ñëw ne leen tokkin doon tokkin doon mooy wax jeex na wax jeex na liggéey des wax lu mhm. ma bi ma ñëw génn ne leen maay I am cinéma man maay cinéma ñëpp di ma laaj loo miin yaay cinéma ma leen mhm. comme tey euh, benn Youssou Ndour jógee euh, toog këram téléphone ring mhm. mu jóg xool ne ah bàyyi ma tëddaat benn 5 minutes mu tëddaat affaire bi ringaal mu jóg sangu dem ci wanag bi sangu toog ci seetu bi defar boppam bi. génn taal motoom bu moo génn radio station benn Pape Cheikh a ngi wax. Mhm. ak kan Boubacar Diallo mu ngi yuuxu fële bii mu ngi nekk yeewu leen. di doxal mhm. nga dégg moto yi nu ñuy riiree taxi yi arrêté yi maire yaa ngi saaf seen seen ay jën. Mhm. yaa ngi gis maire yaa ngi téye sañ doom bi yóbbu yalwaankat yaa ngi taxaw fële. xam nga riir baa ngi bëri ambiance bi li ngay gis sa sa bëti mooy lens bi. Mm-hmm. sa bët bi mooy lens. sa fii mooy mémoire yaa ngi captivé ay ay scénario yu bëri yaa ngi captivé ay ay ay histoire yu bëri. Mm-hmm. toog loolu noonu fu may jëm suma àddina man léegi suma fu ma romb rek maa ngi gis ay story kon yow daal boo boo boo rombee di dem. maa ngi nii ngay gisee ñuy réaliser émission bi sax. story yaa ngi bind scénario sa biir bopp. exactly loo tax ma ne I am cinéma. du doog ku ne ay bàkku ne man la yow you are cinéma. she is cinéma we are. everybody ku nekk cinéma ñun ñëpp cinéma la ñu daal maanaam. d' accord fa mel ni daal vie bi. Mhm. benn euh, long métrage bu mag a mag la scénario bu mag ku ci nekk di jouer sa rôle. exactement léegi yow ci loolu ngay inspiré wu pour bind yeneen rôle yi. d' accord exactement comme tey su ma waroon a def benn émi euh, programme boo xam ne fa am ay émission lu fi xew yëpp mu gis suma boppam mun naa toog jël loolu def ko. d'accord def ko scénario. ok donc ñu xool euh, showbiz tuuti benn partie rek lañ leen ci may parce que 13 minutes la mënuñu xool yëpp. Mm. ñu ñëw dellu si wax ci naka la bi nga xam ne Sénégal yëpp ñu ngi koy xaar actuellement. Really good. You knocked We're going to take it to another level. Let's do it, man. Good stuff. You're done for the day. Come on. All right, I'm out to you. Yeah, yeah. yeah. Say, bro. Take it easy, superstar. Yeah, man. Got you, Big D. Yo, my man Triple X. Zeke. Keep rapping, man. One. Got some tight shit going on right there, man. You know it. All right. Let's go, baby. voilà boo lii moo nekkoon showbiz showbiz histoire bi lan lay raconté. mooy comme ni ñu nekk ci show business bi rek. Mhm. am benn Cisco bu ndaw bugg tekki bugg a siiw bugg am buzz. di liggéey ci benn studio raxaskat la fa balekat waaw mu gis booy bi génn studio ànd ak gel yu nice koppar baa ngi fees mu ngi dawal moto bu tooy. moom tam mu bëgg loolu moom dafay woyantu sax mun na mun na woy am na voix bi waaye mënut a bind. d'accord so mu dem gis benn woykat ci mbedd gi di woy mu ñëw am inspiration dem ñëwaat ne ko yow li nga woy neex na. Mhm. ndax am nga mixtape am nga album da ngay def tournage. mu solu ba baax ñëw nax ko ne ko man big producer la mhm. Prince Aaraay liggéey man euh, booy ñoom Pape Birame yëpp maa leen di produire maa leen boole ñoom Ibou ah mhm. maay xam nga ndaanaan laa ci affaire bi nga nax borom jël woyam bi enregistré ko sa mobile nga dem kër déglu ko. repeat joué ko waaw joué ko dem nice nga dem loolay sàcc woy jàmbur waaw sàcc bi loolu laa ci génne ak euh, xam nga rek nga dem yàlla def euh, sa sa producteur bi si boppam gis la like la. Hmm. mu signé la mu toog nag nga am benn euh, performance bi nga war a def acoustique mu nit ku la def backing vocal. Hmm. mu dem ci mbedd bi dajee même personne. jël ko indi ko. nga dajee moom nag foofu noonu histoire boobu. non show bi il faut ñu tagal ko Sénégalais pour ñu seetaan ko mais dafa mel ni film boobu moo la jox envie tamit. Mhm. Euh, ngay dem produire leneen ba ci naka la. Mhm. Euh, naka la ngay raconter vie wu africain yi nekk euh, en Europe un peu parfois parce que bu ñu ñëwee Sénégal d'habitude du ñu raconter li fay xew yëpp lan moo la jox envie nga def naka la. naka la mooy comme last year dama ñëwoon fii di waxtaan ak ñoom Youssou Ndour ñoom Diaga. parce que euh, ñu am ay yenn projet yu ñu bëgg a def. Euh, den ñu ne ma comme yaa ngi dellu Angleterre mun nga fa doolee dara. ba avant nga ñëw Sénégal ni job so ma dem toog xalaat ne lan laa war a mun a def ma ne waaw war naa war a wax histoire bu ñuy dund bitim réew pour ñu nekk Afrique ñu gis ko. parce que léegi léegi nga gis affaire yu doy waar. te xëy na ñu nekk fi xamuñ ko. affaire bi doy waar ñu nekk foofu tamit am na ñoo xam ne xamuñ ko ma ne bàyyi ma wax noonu la naka la juddoo. léegi naka la pourquoi titre bi. bi title bi comme ah dama bëggoon indi loo xam ne nit ñi dañ koo jàpp. Hmm. comme Sénégal ak Gambie yëpp nañ ko wax comme Sénégal ñu eh bi naka la. fils naka la waaw waaw <laughs> naka la. Hmm. yooyu noonu because dama ñëwoon ak tur yu bëri dama ñëwoon ak dooree xam. ak euh, gis nga yow. Hmm. ak euh, euh, naka la ak nu mu fa demee. soo ñu toog waaw ma def ko Facebook tamit seet fan si lu ñuy wax ba waaye nakala bi moo gën a fees. Mhm. soo ñu ñëw ak nakala. d'accord mhm. donc biir nakala euh, ci teaser yi ñu jot a am. Mhm. Euh, am na yu bëri yu ñu ci gis. Euh, damay bàyyi ñu seetaan benn teaser bi ñu ñëw ko. no problem. yow Vivi miin ma nag taxul nga yabba yow war maa bàyyi boo ba léegi si station bi ma taxaw di la xaar ba pare maa ko sa téléphone bi nga bañ koo jël wees na nag suma taan jógal ñu dem. yow lii lan la ni jógal ñu dem waaye suba time bii wés nga ba pare maa wax ak yow ngay ras sa kanam lan la dafa am ku dee comme lu xew. yow suma safara fay na. safara la sa contrat bi dafa jeex. ne contrat bi sama tare. kon lan la lu xew kii du loolu yow dafa semestre yow tamit yaa ngi mu def ak yooyu a agsi. mën naa mën naa dafa egsi ba écouté. foog jooy bi bàyyi jooy bi jooy bi du ko solf. ko defar dinaa ko réglé. alors bi ma nekkoon deuxième teaser u naka la parce que premier bi je pense que sénégalais yëpp gis nañ ko à travers euh, la télévision Futur Média. Mhm. te ñoom ñëpp ñu ngi koy xaar ci deuxième teaser bi li ma marqué mooy yaa ngi reprendre rooyu Pape Birahim mhm. di fësal amour naka la est-ce que film amour kese la wala am na yeneen yu nekk. ci biir waaw love betrayal la am na amour mhm. mbëggeel bu tar. bu doy waar bu ànd ak feeling boo xam ne da si sa biir mu dem ba suppa jalan wëlbateku nekk mbëggeel bu bu bu métti mbëggeel bu difficile di nga jooy di nga di nga mere di nga di nga di nga di nga di nga faral so ñu génnee ci loolu nga am sa jabar euh, mu jóge mu nekk Angleterre fekk la Afrique enu la yóbbu la defal la lu nekk teral la terangal nga dem ba sa boot ibeeku am sa kayit génn ko gis keneen waaw gis keneen ba pare mu boole la ay xaritam parce que moom dafay tukki modèle la sa xarit am nu mu demee ak yow nga gis kooku noonu daal di dem ak moom ci si suuf si sa sa xefi sa jabar ngay nekkaa moom xam nga jigéen yeni neen nekk ci salon di liggéey ngeen jotee xuloo nga xuloo ya nit fekk xam na ne amoo kayit mu booy la immigration bi ñu ñëw la déporté la seen loolu soxal la waaw soxal ak euh, gars bi di la womee affaire bi jeex na ah, dépasse bi cash power bi courant bi Sénégal xale yi ak Gambie ñu lay woo waaw xam nga nga dof xamoo nooy def dem dugg ci affaire yi jaay ay drogue ci mbedd gi am na mu demee coy kof la. teg benn place histoire naka la du yomb bu ñu wax yëpp nañu bàyyi téléspectateurs yi di ko découvrir euh, fii ak série bi di jàpp dama bëggoon ñu wax tuuti ci casting bi parce que yow dafa mel ni da ngaa dajale xale yu tooy yi nekk foofu yëpp ñu rafet ñëpp dugal leen ci série bi yow sa casting dafa mel ni noonu la de non xam nga nag loolu la wax ne casting ah ñëpp rafet di waa waaw xam nga rek loo xam ne dañ koy seetaan ci télé dafa war a dafa war a enticing dafa war a nit ñi dañ ko war a fiil mm-hmm. so te xale yàlla def nañ ñoom yëpp macha allah mm-hmm. rafet uh, xam nañ style xam classic and sassy. mais est-ce que ay actrices lañ ñoom euh, Vivi Amicris Maria Kumba. Euh, Gomez Bella Gassama ñoom ñëpp est-ce que ay actrices euh, Vivi Amicris mooy leading protagonist bi. moom tamit mooy actrice principale moom mhm. she is Nollywood actress in UK. Mhm. and Bella Gassama moom depuis Gambie and uh, moom tamit ràññee nañ ko xam nañ ko ci UK Nollywood. Mm-hmm. and uh, Marie Coumba Gomez mooy the face of Nollywood in UK. Mm-hmm. moom tamit xale bu tar class act 2011 moo ko win. Mm-hmm. moom tamit she is a professional actress. and then Gina Mane mooy première mu mu feeñ moom modèle la. modèle la tamit d'accord and uh, mosut a def série. ma boole ko ci am na ñoom Aïda Thiam ñoom Anta Diatta ñoom. ñépp ay Gambien lañ wala am nañ ci benn ah, benn sénégalais. d'accord doy waar ah, poche di Radigan. Mhm. moom moom ci UK Nollywood industry bi. la bokk waaw booy am nañ ci booy ñoom ala alel Alaaji Keba ñoom Musti Diabo Ous Touré ñoom amu ne ak acteur boo xam ne Gambien ñëpp a ko xamoon. star mu dem Angleterre yàgg. arrêté joué waaw waaw Ibrahima Diawo. xam naa loolu dina neex bu baax. Mhm. Euh, Gambien yi nara seetaan film bi yëpp ak sénégalais yi. ñu xoolaat beneen teaser boo xamante ni moom la ñu mujjee def. Mhm. pour lancer série bi.

alors bi mooy dernier teaser u naka la juste mm-hmm. avant muy génn ci télévision Futur Média mm-hmm. yan attente nga ci am ci série bi série bi lu wax mooy euh, comme euh, cinéma dafa utee home video mm-hmm. when you're doing cinema you need to know about the production quality qualité production bi image bi. Mhm. Euh, caméra angle xam nga film euh, ak cinéma dafa am dafa am. Euh, différence par rapport ak image yi ba pare dafa am tamit technique. Mhm. foog nga xam technique yi caméra bi foo ko teg kuy wax point of view woon. Mhm. so parce que man dama def masters in film making so bu ma def production bi qualité. ak uh, international film. nga ciy uh, gën a xool ba conventional a film yooyu mm-hmm. ku seetaan affaire di nga gis ne affaire bi euh, musicale parce que da ngeen di wax ba ci kanam ngeen que artistes sénégalais yu ci mel ni Pape Birahim mm-hmm. wala Wally Seck wala Viviane da ngeen di mm-hmm. reprendre seen ay woy. lan moo waral choix boobu ci euh, chanteur sénégalais woykatu sénégalais. waaw parce que dañu wax ne Gambian série la Gambian production. waaye dañ dama Sénégal ak Gambie benn bopp la yàgg nañ ko wax. kenn ko xar ñaar dëgg la depuis euh, time maam yi la. ba pare euh, suñu référence suñ suñ suñ kilifa Youssou Ndour. Mm-hmm. moom woyam yu bëri comme Demba weesu na waaye du ma fàttali ko maam dafa. sonoon ci na saxaan ma tëdda ci suma kaw lal di seetaan télé nelaw maa ngi ñëw bitim réew aw ma liggéey. Mm-hmm. nga déglu woy boobu woy boobu nga déglu ko seetaan image bi bu fekkee ne ku am. créative créativité di nga xam luñ faa wax parce que am na tubaab doo ñëw sa njëkkari neen ku bon ngeen nii nga ñu defa ni waaye am na ni leen a waxee te doo mhm. ibi sa gémmiñ sax wax ak ñoom la Wally Seck dafa am euh, euh, ci kan laay ci kan laay fanaan waaw yaay sama baay yaay sama doori mhm. mbëggeel affaire bu doy waar da nga ko wéy nga fiir ko sa xol dëgg la Pape Birahim wéyam boobu noonu ki ma doon. non dafa mel ni dama <laughs> dama ko déglu déglu ma koo njaga ne ko njaga. ndax mm. wuy bii mun naa ko def ci naka la mu ne no problème. amul problème mais pourquoi ngeen nga décidé def comédie musicale. waaw comédie musicale because dama gis ne Afrique ñun dañuy act rek. ñu just mm. do acting te Bollywood ñoom yàgg nañu def ay amour kii woy fële daw kii woy fële daw. Mm. ma ne ñun lu tax waruñoo def suñu own thing ma create a musical television ko naka la boo xam ne dañuy lifin bés bu léegi léegi nga woy neexalaate. léegi-léegi nga am lu la naxari nga wéy ko xam nga mu indi beneen difference mu indi mhm. something new something you know 100% lu bees tax loo xamante ne kenn defagu mhm. ban message nga bëgg lancer téléspectateurs yi di seetaan nga xam ne ñu ngi xaar série bi dina kala waaw di wax waa Sénégal waa Afrique waa Gambia mhm. nañ leen bàyyi xel affaire bi mu ngi ñëw lu bañ a yàgg série bu doy waar série bu jéggi dayo production international stars yu garaaw man su may def suma uh, uh, directing réalisé su may réalisé mm. soo waree jooy da ngaa jooy ba dongoñ tuuti soo mm. waree ree da ngaa ree mm-hmm. di nga fa di ku nekk di gis sa bopp ci émotion bu nekk dina fa am ku nekk di nga gis sa bopp ci série bi mm-hmm. di leen wax ne waa Sénégal maa ngi leen a gërëm leen sant di di gërëm kilifa gi Youssou mm-hmm. lu ma joxee chance bi ak opportunité bi xam ne ndaw laa maa ngi door te am na uh, lu mu gis ci man ba jox ma chance bi Ndiaga Ndour Bouba Ndour Ibou Ngoné ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant bijou jërëjëf tànk waa Gambia suma yaay ak suma papa ñoo xam ne jàppale nañ ma bu maa door suma bàjjen surtout di ma yar ak euh, képp koo xam ne jàppale na ma suma carrière képp koo xam ne euh, support nga ñu si lu ñuy def hmm. bi ak crew bi ma mun a lim ñëpp waaye di wax thank you very much di ñaan képp kilifa képp koo xam ne mu ñëw seetu xale bu ndaw la xaw ma dara munuma dara defaguma dara dama sàkku ñaan képp koo xam ne yaa ngi ñoo seetaan nga ñaanal ñu yàlla rafetal suñu jot si fu ñuy jëm ñu àgg alias Cisco donc euh, ñu lay souhaiter good luck pour série bi di la xaar aussi ci yeneen production merci ñëw tey pour waxtaan ak ñun. Mm-hmm. merci yéen chers téléspectateurs Télé Futurs Médias yi ñu seetaan xaar tuuti naka la moo ngi ñëw ak yeneen programme yoo xam ne télé bi moo ngi leen koy garder au revoir à très bientôt.